ci talaata gi ñetti fan ci weeru mbar njiitalug mouvement gëm sa bopp lay jàmbaar bind na bataaxal ñaawlu doxalinu Omar Diagne bi ñu tabb directeur des moyens généraux ca palais de la république Bougane Gueye Dany njiitalug mouvement gëm sa bopp lay jàmbaar di wax ne Omar Diagne posan ci penc mi moo di dey président Diomaye ci tabb gi mu ko tabb ànd na kon ci taxawaayu Omar Diagne ginnaaw yenn ci ay attaque yi mu def ak i critique moom soi-disant docteur boobule professeur fenkat boobu di Omar Diagne jëmale ko ci Serigne Touba ak yenn ci ay vidéo yi nga xam ne def na ko ngir attaqué yenn ay tarixa te kaaralug président Diomaye mel na ni ku ànd ci doxalin wile Bougane Gueye Dany njiitalug mouvement gëm sa bopp les jàmbaara di wax ne te kaaralug kilifa yi ngànk réew mi rawatina Sonko ak Diomaye day mel ni luy dëggal ak jàppale yéen ci ay jëfu Omar Diagne jëm ci sunu ay tarixa Bougane Gueye Dany njiitalug mouvement gëm sa bopp les jàmbaar ne nañu ko nangu rek jëfin wi ni mel tukkee ci sunu ay njiit dafay wane sëkk ne li nu bëgg mooy imposer ñu seenub islam fii ci mim réew di Sénégal wi ñëpp xam ne kenn yu ko téye bokk na ci sunu kilifa diine yi mu ne nag jot na sëkk ñu taxaw ci temb ngir xeex li ni mel waaye it mu am ci xel wu dal ne askan wi duñu bàyyi mu jàll Bougane Gueye Dany njiitalug mouvement gëm sa bopp li jàmbaar di ñu fàttali ne ci jamono ji nga xam ne Maroc mi ngi waajal lancer première cimenterie fii ci mim réew di Sénégal Omar Diagne ci wet gi mi ngi wone boppam dëggantaan ci ñàkk tegginam jëm ci dëkk boobule di Rabat Bougane Gueye Dany njiitalug mouvement gëm sa bopp lay jàmbaar di laajte ba xam ndax jomaay moom muy njiiti mi dafa cautionné fafa jëf yu bonte ñàkk teggin yii tukkee ci jëmm jooju di Omar Diagne nga xam ne moo gën a ñàkk solo jamono jii ci Sénégal bu Ousmane Sonko jàllee Bougane Gueye Dany jiitalu gëm sa bopp lay jàmbaara di wax ne taalibe yi ak fépp fu nu mën a bokk ñu bàyyi lii mu jàll ndax ay kaddu yu ñaaw la tukkee ci Omar Diagne wi nga xam ne mi ngi dendale grande mosquée bu Touba ak bu Dakar ak i signe masonik di ay wax yu ñaaw yu tegginewul mu jàpp ne ki wax wax ji war nañu ko làpp-làpp yu metti ci pénc mi Bougane Gueye Dany jiitalu gëm sa bopp lay jàmbaara di jeexale nee na ci ñëpp barkelu Mouride amul ëpp Serigne Touba